bi arab yi di wax sadiquka man azadaka la man hazabaka am moom principe bi muy doxe tax na mosuma ko wone ko bu ma soññee nanga ma dox ci te xëy na du ñàkk léeg lekk am na ci yoo xam ne xëy na dana jàpp ne bu ma ko naa caa dox waaye ko wax loolu lépp itam day mel ne li ko déggee rek mooy bëgg di doxee ngëm-ngëm ak liberté loolu ci jublu kon loolu ndax ku ci ne xam na sama digg moom te léeg-léeg itam comme noonu ma ko waxee rek eh, àdduna ko indi waaye lu ci ne da ci doxee ngëm-ngëmam maye tam ma bàyyi ko ci xalaatam ak ngëm-ngëmam xam ne loolu tam lu mu gëm na ndax xëy na nit boo ko miinut wala nga sori ko mën ngaa bañ a xam ci moom lu bari waaye fan yii ñu mujj waxtaan rek yéem naa ko ci moom lool ndax gis naa lu mu lay wax rek lu moo doon xam nga nit moom mën ngeen di waxtaan dara ngeen ñàkk ca déggoo waaye gis naa li muy lu muy xeexal rek réew mi la jublu loolu loolu lu am la. kon euh, nit ku mel noonu itam nit ñi war nañ koo gën a xam bu baax a baax xam rol bi muy soyee ci réew mi te xam naa ne ku bëgg istiqraar la ci biir réew mi ndax léeg-léeg réew mi toll ci situation yoo xam ne ñi xamul sax danañ jàpp ne moom dafa bëgg taal réew mi te fekk na ca safaanu loolu la nekk ba demee ba gis ne yëf yaa ngi bëgg a boy rek daana wax ne lii de yéen bu ngeen ci defoon nangam ak nangam dara baax te loolu njëriñam bu ci ne du ci bëgg a feeñ loolu itam kon lu am solo la kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal itam suñ borom gën koo kàttanal kàttanal ñi mu àndal ci liggéey bi ba mission bi yàlla dimbali ko ci ba fa mu ko bëgg àgg mu àgg fa di ko xamal ne daal lii mu def sëriñ bi bëgg na ci rafetlu na ko bu baax yoon mbur yëpp it rafetlu nañ ko képp koo xam ne